aousubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki àdduna noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen baalu àq te di leen balaax waaye di jiital ci nuyoo beeg ziyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom guddal fanam lool te wéral cëram waaye niki noonu la ñuy ñaan lay sëriñ am ni Mboodu Mbenda moom mi toog toogaayu Sidi Ibrahima Fall ñu ñaan suñu borom doole ko kàttan ba li mu naa la liggéeyal maamam Cheikh Ibrahima mu yeggale kook sagoom mbokk yi bu ngeen gisee fii ñu taxaw ngeen xam ne ñu ngi ci bis bu màgg ren di vingtième édition bisub Serigne Cheikh Khadim Fall bi nga xamante moom la baaxoo di woote euh, premier mais bu nekk fii ci stade Maris Ndiaye muy bis boo xam ne da koy def saa su ne di ci sant maamam ju baax ja Sidi Birame Fall làmp mu mel ne ren xaw naa amuk coppite ndax premier mais bi dafa xaw a jege antoog korite gi ren ñu di ko def le 7 incha allah mai ci la nekk nii mbokk yi ci ànd ak télé yi nga xamante ne nii baaxoon nañoo ànd liggéey bi euh, muy télé bu mag bi di Xidma euh, Média di télé sëriñ bi ñu war ko lancé waale incha allah ci bis bi muy télé bu yees tàq di ñaan mbokki tele téléspectateurs yi ñuy seetaan ñëpp dem abonné wu ci waaye di ko ànd ak seen télévision Touba Vision waaye di ko ànd ak Bichri TV académie Minam Ndindy Actu euh, mboole seen seen yi rek ku ñu lim ku ñu limul ñëpp rek daanaka image bi benn la. te ñun ñëpp bokk liggéey bi mboole seen télé yi rek dinañ ko jàllale incha allahu taala mu mel ne ñu ngi ci ndorteelu bis bi nekk ci waajtaayu bis bi bis bi nag doore nañ ko ci jàng alxuraanul karim waaye dooree nañ ko ci jàng xasaayitu seexul xadim mi waaye des na fi tudd yàlla bàkk ko ci ni ngeen ko daax baaxoo gisee ci biir stade bi nga xam ne kuréelu Sam Fall geeg Baye Fall yi ñëpp bu sëriñ bi agsee ak i ganam daanañu ko def mu mel ne sëriñ bi mi ngi ci waajtaayu dikk ci li nga xamante ne mooy njàngum alxuraan mi waaye ci dalal gan ñi mu mel ni dees na leen duggal ci biir dégtal leen li ngeen xam ne moo tukkee ci waañ mi waaye li ngeen xam ne moo tukkee ci exposé yi nga xam ne am na fi ngir gën leen a xamal ki nga xam ne mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp mbokk yi bu ngeen ñu toppee rek niskis danañ leen duggal ci biir lépp lu fi ruusee rek incha allah des na leen ko dégtal mu jëm ci li nga xamante ne mooy bisub Cheikh Ibra bi euh, ren di la 7 mai incha allah 2022 ñu di ko amalee fii ci stade Marius Ndiaye ci ndigalu Serigne Cheikh Khadim Fall ñuy ñaan mu yàgg koo teewee yàgg koo taxawal ak mbokki jëwriñam yi nga xam ne ñoom la bokkal kër Cheikh Ibra waaye ak mbokki taalibe yi nga xamante ne ñoom la bokkal Cheikh Ibra ak ñi nga xam ñëpp ñoo ko yaakaar mbokk yi ñu leen jox dig daje rek incha allah lépp lu tukkee ci bis bi ba ci collectif ba ca ngoon ga ba ci guddi ga incha allah dees na leen ko dégtal ñu ngi sàkku ci yéen ngeen di bàyyi xel li nga xamante ne nii it mooy télé sëriñ bi di Xidma Média muy télé Cheikh Khadim Fall bi nga xam ne mooy télé bu yees bi nga xam ne moom la ñuy lancé waale ci bis bi incha allahu taala nees kiis rek ñu dugg ak yéen dégte leen li fi jot a ruute wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa kay mbokki téléspectateurs yi ni ñu leen ko waxee woon rek ci image yi ñi ngi ak euh, jëruñu waañ wi soxna Awa euh, soxna Awa ñu ngi fii ci waañ wi mu mel ne liggéeyu waañ wi yéen a ngi ci naka la liggéey bi di demee fii ci waañ wi waa liggéey bi nag moom ñoo ngi ci kawam ginnaaw yàlla ñu ngi sant euh, yàlla ak yonent bi sant suñu waajur di sant Sëriñ Tuubaa ak Cheikh di sant nag ki nga xam mooy suñu bunt ci yoonu Cheikh Ibra muy Sëriñ Cheikh Khadim Fall ñu ko sant di ko ñaanal wér ak wér la di ko ñaanal gudd fan ndax ñun li ñu doon moo yombul Baye Fall te dafa doon loo xam bi la ko suñu borom joxee lu metti la xol bu dëgg dëgg moo mën a liggéey Baye Fall ndax dafa metti te yoon dafa sori te yoonu Cheikh Ibrahima nag ku nekk xam ne ne yombul waañ wi nag moom tubaarkàlla macha allah dañuy sant yàlla bu baax ndax ñu ñu ci nekk man may cëppeelu ci waañ fukki at laa am ak ñett maa ngi ci waañ wi ren euh, maa ngi ci moom fan fanweeri at yoo xam ne ñu ngi koy ànd man ak moom ak sunu borom kër at ak ñett maa ngi ci yoonu baay Fall di ci sant yàlla nag bu baax gis yokkute bu baax a baax a baax waañ ñu ngi commencé tey bi ñu xëyee ñu ngi commencé ci ndekk lakk nañ ay xar yóbbul kilifa yi defari ginaar ndekki defar suñu café suñu suñuy ole yi xam ne defar daal pour ay tiraanga rek pour bisu yoon bisu Serigne Touba ak Cheikh bi waaw ci lañ nekk daal añ bi tamit def nañu suñ 35 mbana def nañu 20 ceeb dagg suñuy pay laa 15 mana lépp ta jàpp 35 mana bi ñu paree foofu ci añ bi am nañu limu nag yàlla def na taalibe wàcc nañ ci fukki nag ak ñaar ak fukki ginaar fukki xar ak ñaar ñu ëlbati ko fi ginaar yi moom mu ngi ngeen teg seen bët 600 ginaar bokkum taalibe da ko fi ñëw wàcc ñu koy liggéey te pareeguñu ñu ngi ne léegi lañ fi yeewati ay nag pour ñu toj ko toog ko reer mais lépp rek dañ koy sante Cheikh Ibra ndax sëñ Cheikh li mu wax dafa yomb sama bis bi tuddee ma ko sëñ Mor Talla tuddee ma ko bis sëñ Cheikh Khadim ma ko kenn dama ni ñëw leen ma Cheikh xanaa loolu ku bëggul baax toor koo topp te ñu xam ñu ñu ci nekk boobu ba tey yoonu ndam rek ndam rek ñu ngi leen sant bu baax nag di lu teewaay bi. mel ne reer yi naka lay demee benn xeet lay doon wala yu bari. Ah, ñun xalaatuñu lool romb nañ foofu ñun yaxas rek ci ñun la toog ñun am nañ fukki plat xam moom lañu war ci reer war nañoo defar ay mbaxalu yàpp ndax kooku moom sunu don la war nañoo defar cere war nañoo defar ay petits pois tamit yoo xam ni pour kii la war na ñoo mun daal ñun daal ñoo ngi fekk ay salade ñun saar ordinaire sa dañ koy togg ñun ñoo ngi fukki plat yoo xam war nañ koo togg macha allah tabarkàlla macha allah ñun daal dañuy ñaanal ñun sunu buntu séeréer dañ koy ñaanal gudd fan ak wér lool daal dañ koy ñaanal faal yaaram waaw naka ngeen def ak wàllu préparation yi ak cet setal gi daa mel ni yéen a ngi ci wàllu cet setal gi. gisoo xanaa ni ñu def lii koy gis xam ne lii mënut a paase set jël ginaar fanaanal ko ci congélateur yi ba ba set ñimewuñ ko sax raxas démb dañoo xëy ginaar doo ko ci frigo ba ba set ñu taxaw raxas ko ak sunu teeye bakkan def sunu hors d'œuvre def li ñu war a def yëpp raxas ba mu siir def suñu ndox li ngoom def ñu war a àndal yëpp jël sunu temps piqué ko nag ba mu baax. tay ko ba mu suus ba ginaar yi wàcc ñu saaf nag ba doon mën a préparer pour ko mën a taaj kilifa yi waaw ci loolu daal la ñu nekk. waa kay mbokki téléspectateurs yi yéen ñu ñuy suivre ci suba ak léegi ni nu leen ko waxee woon ci image yi nga xam ne moo ñu jiitu ñu taxaw ak kenn ci jëriñu waañ wi bëgg a taataan ci ay kàddoom euh, ngir ñu xamale ne li nga xamante ni mooy yi yi nga xam ne mooy bernde yi jëm ci bis bi. Euh, jëriñ ginnaaw bi ñu la nuyoo di la ziyaara bu baax ci bis bi euh, nga baal ñu fàttali ñu tur beeg sant wi. man maa ngi tudd sëñ Xaadim Ndiaye. sëñ Xaadim mu mel ni ñu ngi tey ci waañ wi nga bokk ci jëwri ñi nga xam ne yéen jiite lii di waañ wi ñu bëggoon a xam rek naka la liggéeyu waañ wi di deme ku ne restauration muy pàcc bu am solo ci bis yu mel ni rawatina bisub maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp mi nga xam ne ku ne xam na ne ko ci bernde euh, weeru koor wii nu génn rek ku ne gis na njabootam gi nii ñu ci taxawee nga bokk ci jëwri ñi nga xam ne yaa jiite loolu ana lan nga ñuy indil rek ci lu jëm ci wàllu waañ wi. waaw alhamdulilah rabbil alamin arrahmaani rahim waaw da ngeen a dikk fi fekk ñu ci wañu wañu nak mom moy tax bokku na ci taxaway liggey bi yi ci yi ci gëna am solo ndax bernde ku ko wax da nga tuddu lu melni ni waañ ndax falan koy tambalé war ko fa défé bu ko défé ñi ngi sant bu baax hit tay ñaan ci baaxu serigne touba Cheikh Ibra ci baaxub Abdou Khadim ci daara jey Cheikh Ibra mi ñuy liggéeyal ci bésub maam Cheikh Ibra bi ñu naan ko le premier mai tey jii ñu koy def le 7 mai ñuy sant yàlla bu baax ci fekke gi nga xam ne fekkeloo nañu ko tan bokk ci liggéey bi te fas yéene ko wéyal ñu waañu nag moom dafa am ay jëwriñ yu ci mel ni suñu Aziz Ndiaye ak soxna Awa Ndiaye ñooñ ñooy jëwriñu waañ yi ñun ñii nag ay leen ko mën a wax ay membre lan ñu topp ci seen ginnaaw nekk nekk at ah, yàlla dogal ngeen dajeek ñun rek ñu am luñ ci xam di leen ko di leen ko wax waaye ñi ngi ñaan ci baaxu suñ tuwaa Cheikh Ibra daal taxawaay yii ngeen am ci waañ yi ba ñëw di ko kii ngir la yaatal liggéey bi maam Cheikh Ibra bi sama borom defal leen ci ndam lu lu yaatu ba lépp lu ngeen bëgg a def ci bis bi ak bisi Cheikh Ibra bi bis yi nga xam ñu ngi koy wooteel diine sama borom defal leen ci ndam lu kawe ci baaxu suñ tuwaa Cheikh Ibra bu ko defee daal ñu ñu ngi wéy liggéey bi daal fu mu fu mu àgg rek moom yéen daan ko ànd ak yéen bu soob yàlla sama borom comme nin daa ko ànd ci liggéey koor gi ak taxawaay yi ci def ba fépp ci àdduna di ci teg bët xam ni liggéey bi nii la demee ci sell ak woyof akuk baax ngeen wan ko ba jullit ñëpp gise ko noonu noonu ñu ko gise noonu lan ko fas yéene ànd ak yéen ngeen gise ko ni liggéey bi ànd kook Serigne Cheikh Fall Khadim mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi kon ñu ngi koy ñaanal yàlla sama borom mu dolli jàmm ak tawfeex ndimbal ci moom ba mu gën koo mën a yaatal gën a wane maamam ci bis bi loolu mooy li nga xamante ne nii rek mooy kàddu yi jëriñ ji doon sànni ci waañ wi kon bu ko defee rek dañ leen di bàyyi image yi nga xam ne moom lañ leen jëlalee ci biir waañ wi lu ci mel ne ni ñuy defaree bernde yi ak ni ñu koy waajalee ak toppatoo gi incha allah danañ leen ko dégtal dara du leen ci raw incha allahu rabbi mu mel ne bu ngeen toppee image yi lépp luy tukkee fii rek incha allah di ngeen ko bàyyi xel muy bésub Cheikh Ibrahima Fall eh, ci ndigalu sëñ Cheikh Khadim ñuy ñaan suñu borom yàggal ko fi mu yàgg koo teewe waaye te yàgg koo yaatal eh, mbokk yi lii mooy li ñu jëlee loon ci fi nga xamante ni mooy waañ wi ñu bëgg leen a li nga xamante ne nii mooy yeneen reportage yi am ci bis bi ndax bis bi yamul ci waañ wi mbokki waa université yaa ngi fi yeneen dal yaa ngi fi te bis bi yaatu na incha allahu taala noonu la leen koy toppee ba guddi gi ci li nga xam ne ni mooy collectif bi ak sikar si wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu la ilaha illallah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 bisimilah mbokk yi téléspectateurs yi ni nu leen ko waxee woon rek ñu ngi ak yéen fii ci exposé bi ànd feeg jëriñ Mouhamed Ndoye moom moo ñuy dégtal li nga xam ne moo fi tukkee ci exposé mu mel ne nag nii ñu leen ko rappelé woon rek noonu lañ leen koy fàttalee mboolem support tele yi nga xamante ne nii baaxoon nañ leen a gis ci yoonu murit ñoo ànd liggéey bi mu di benn waaye it ñuy lancé waale télé bi di Xidma Média di télé si xa Serigne Cheikh Khadim Fall mu ñëwaale tey ci bis bi incha allah kon dañuy ànd ak jëriñ Mouhamed mu dégtal nu rek ginnaaw bi mu nuyoo ba présenté wu mu dégtal nu li nga xam ne moo fi jot am ci exposé bi jëriñ Mouhamed bisimilah. waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatulah ñu leen di nuyu bu baax di rafet rafetlu liggéey bi nga xam ne moo ngi fi liggéey ñëw tey jii ci bañ vingtième édition bu Màggalu premier mai tey ñu def ko nag ci bu nekk 7 mai deux mille vingt deux bi. waaw ndax ni mu demee woon moo di dafa euh, xawoon a dugg ci koor gi tey def naa ay ñaari at a ngi nii defuñu ko léegi nag ñu watiwaat ko sëñ ren ji pour mën koo magal. ñun nag da ci amoon taxawaay ñu ñun waa Daara Moukhaddamatoul moo bu tubaa Université Cheikh Anta Diop bu Dakar. chaque année ñu koy ànd ak sëriñ bi. mu ci woo ñu koy taxawal exposition bi. di ko taxawal aussi yeneen cellules yoo xam ni du exposition kese quoi mais ñu nekk euh, accueil bi accueil intérieur comme accueil extérieur ak ñu ne ci plonge bi ak ak yeneen domaines yi nga xam ni mooy taxawal ba taaral bis bi ñu nag ñoo féetewoo ci wàllu exposition bi ñu ànd ci ak euh, ñi nga xam ni tey ñoo ne ci daara ji ak suñu jëwriñ euh, fi xam ni Latir ak Atoumane ak soxna Cheikh Ibra ak ñi nga xam ne ñëpp yéen yaa ci liggéey bi ñoo taxaw fii tey fas yéene nag ànd ak yéen ci ci exposition bi tey jii vraiment kon bu ko defee mbokki téléspectateurs yi dañuy ànd ak jëriñ Mohamed euh, mu dikk ak ñun ci li nga xam ne mooy exposition bi euh, ni nga xam ne noonu lañ ko démarré euh, du début à la fin incha allah kon jëriñ mu mel ne ñi ngi taxaw ci benn fan lañ taxaw nii actuellement. waa ñu ngi taxaw ci Mame Cheikh Ibrahima Fall ak pôle économique Mame Cheikh Ibrahima di wax ni nan la Cheikh Ibrahima amee woon koom koom ji nan la ko taxalee woon wàllum koom-koom nan la ci taxawaale woon wàllum mbay mi wàllum wàllum économie dans son ensemble rek ci ci wàllu wépp mi nga xam ni moom la surtout ci mbay mi nga xam ni mooy ab doxal ab dëkk ndax économie si yëpp dañoo wax ni maanaam ab dëkk mënul dox bu ko ci dul ci dañoo bay dundee wala dañoo dem ba tamit euh, bouleversé wu ci mbirum bay pour que dëkk boobu mën a mën a mën a mën a màgg loolu ñi seen xam-xam màcc dem ci wàllum koom-koom yëpp yëpp yëpp yëpp xam nañ ko loolu nag Cheikh Rafal da ko teeloon tàggat boppam dëkk yu mu am rek loolu dafa daan fa nekk léegi fii parti boobu loolu ñu doon doon développé fii nag waaw ci loolu lay wax fii nag waaw hmm. ci beneen pàcc ngi ci Mm, waaw waaw parti bi muy wax ci diplomatie de Mame Cheikh Ibrahima Fall ni mu amee woon ouverture ni mu nekkee woon fii ci dëkk bi ba pare mm-hmm. am possibilité mën a ko ak ñeneen ñi nga xam ni ngi ci biti bitim réew mm-hmm. ñu bokkul gis-gis ñu bokkul gëm-gëm mm-hmm. ñu bokkul leneen leneen dem ba tubaab yi ak ñoom dem ba xam ni ñenn ñi sax di def ay témoignage ci moom di wane ni Mame Cheikh Ibrahima Fall euh, day wax naan ke bu dafa xarañceem ak xam-xamam ak ubbeekoom romb na sax quand même nit koo xam tellement day day day dox ci day nii. waaw am na benn tubaab bu doon wax naan maam Cheikh Rayan Fall il est quand fin il est fin intelligent remarquablement intelligent je sais pas comment ni ko mais li muy wax rek moo di maam Cheikh Rayan Fall dafa amoon dugute ak ak tubaab yi référence yi tey Cheikh Rayan Fall tey bi si tubaab demee médiateur la woon interlocuteur la woon mais aussi ku amoon ouverture d'esprit la woon. bi Cheikh Ahmed Bamba nekkee ci géej gi sa relation diplomatique moo ko permettre aujourd'hui mu def retour bi parce que pendant ce temps là bi Cheikh Ahmed Bamba demee demee géej bi ñu ko téyee nekkee exil bu période boobu noonu képp ku daan nekkoon ci jamono boobu war a xeex dara ci tubaab bi par le biais de la guerre nga koy defee Mame Cheikh Ibrahima Fall nag dafa préféré woon passer par le culte de la paix indi sa relation diplomatique indi def koom ndànk waxtaan waxtaan ay kii wàcc ba tubaab yi nangul ko ba signé ay pacte ba tey loolu mu créé ba amoon retour en exil bu Cheikh Ahmadou Bamba te pourtant pendant amoon na capacité attaqué tubaab bi parce que soxnaam yu bëri rek exemple ay ay doomi buur la ñu te moom tamit tamit dafa nekkoon un descendant de la famille royale bu bu Kayoor posture boobu noonu amoon na ko tey amoon na capacité bi amoon na mbooloo mi mais am na doole bi mais quand comme salaam lay dox paix bi da ko boole ak diplomatie bi ndànk dal

waaw fii nag ñi ngi fi wax euh, euh, la dimension spirituelle bu Mame Cheikh Ibrahima Fall euh, fii nag partie bi maanaam li nga xam ni mooy li ñu gis la mooy li li li nit ñu dul gis ci Baye Fall gi maanaam yoonu Baye Fall nu muy doxee walla xidma yi maanaam maanaam maanaam li nga xam ni lu bari ci liy doxal li nga xam ne tey moo yor Baye Fall gi sociale bi xam nga Baye Fall maanaam li amul dara Baye Fall du yor dara lu mu yor da koy teg da koy ak nit ñi. li koy waral mooy euh, joxe bi boo gisee rek na koy jiwee rek wane na ko exemple bu patent la. du ko ñam too ko bu ko ñamee desit la lay jox. mun na nga togg ba mu jeex tàkk di ko joxe di ko xeeb loolu nag di ñaan yàlla chaque fois rek xéwal gi di di gën a yaawaan di gën a saawan baawoon. loolu vraiment liñ ci liñ ci jàngate dëgg mooy loolu tey doyoon na pour ñu mën a ñu mën a gérer suñu bi tey ji euh, solidarité boobu noonu mu wootee partage boobu mu wootee tey bu ko Sénégal ñëpp doon def vraiment gisoon nañ exemple bi temps bi en deux mille vingt vingt et bi feebar bi amee Sénégal bi ñu ñëwaatee def au retour sur le social amoon na équilibre amoon na bi ginnaaw bi déséquilibre amee maanaam li koy waral mooy partage bi vraiment Cheikh Fall nag tàggat nañ ci wane nañ ñi xam-xam lépp moom ak yëpp rek li am lépp moom soxla ko mais waaw moom daal social bi la gënoon la gën euh, taxawee pour nga mën a dimbali nit ñi jëmmi Cheikh Ibrahima Fall ni mu taxawaayam ni mu toll maanaam macha allah dafa doonoon koo xam ni maanaam moo toon na euh, romb na deux mètres yoroon tamit euh, taxawaay woo xam ni dafa dafa muccoon ayib ñi mu daan nekkal daan nekk ku daan taxaw moom maanaam maanaam maanaam moo lay sut doonoon tamit koo xam ne ku setal loon woon moo toon sëkk góor góor yàlla nekk aussi ku setal wicc set wicc nag set ci saayir set ci baatin boo gisee da koy naw ci ci colinam ak nangoo liggéeyam nekk woon tey koo xam ni comme ni ko nit ñi jàppee day toog rek yaafus déedéet dafa daan participer ci ci ci ci effort yu bëree bëree bëri ci ci réew mi ci dëkk bi ci ci lépp ah, ba ci bitim réew ba ci parce que en fait ñoom bi ñu nekk boobu noonu AOF moo fi newoon Afrique occidentale française boo fi newoon euh, yàgg naa participer ci ci xewalu xéwalu boppam ci ay à travers liggéeyam yëriñ naa sol. jamono yi tey boo ko doon natt mooy yëre yi nga xam ne ñoo gën a cher ci jamono yi jamono boobu boo fay nekk yëre yi da daan sol man nangu woon xëy xidma wàccaat ne ci solo bu rafet nekkaat ci leneen ak leneen li muy tudd ay majaal ak yeneen loolu daal lañu ñu la ñu développé fii quand même ni mel spiritualité bi mu am ak physique bi loolu daal la ñu doon développé ci ci parti bi nii. fii tamit bon ba léegi fii fii tamit euh, euh, parti bi tamit mooy li nga xam ni moom la doon réalisé. lañ fi lañ doon lañ doon bind fii ak tamit euh, njaboot gi nga xam ni moom mooy njabootu ko moom Cheikh Ibrahima Fall bi. lañ doon def fii bii xanaa ci ki mu jëwoon doon xalif général des Baye Fall ginnaaw sëñ sëñ sëñ Amdi Modou Menda moo lañ def fii muy sëñ Cheikh Fall jëmb moom mi nga xam ni euh, daaw rek la fi bàyyeekoo ci amagu sax at bi fi bàyyeekoo léegi di ko ñaanal yàlla suñu borom yokk ko ay yokk ko ay leer moom la ñu bind fii fi mu jaar jaaram. ak lim fi def ci bi mu fi toogee ci xalif gi ba ba ba ba léegi waaw. waaw fii tamit fii tamit ñu ngi fi di wax fii ba Sakk suñu Abdou Sakkour Fall mi nga xam tamit moo nekkoon cinquième xalif Mame Cheikh Ibrahima Fall. Euh, nga xam ni moom tamit euh, ginnaaw bi euh, si Cheikh Sidi Assane Fall jógee moo fi toog xilaafa gi yàgg fi loolu def fii ay lu bu ci ayib loo xam ni bu ñu ko doon expliqué tamit fii du fi jógee moom lañ bind fii. wax fi ay wax yu bari waaw bi mu fi jógee moom te la suñu Modou Aminta Fall toog xalif fi en 1984. moom tamit ba bàyyi 2006 bi mu fi jógee di jox jox xilaaf ak sëñ Cheikh Fall moom tamit mu doon jàmbaar joo xam ni mooy jàmbaaru yoon wi mooy mooy murutu yoon wi sëñ Cheikh suñu Modou Aminta Fall suñu Modou Mame Niang euh, moom dafa ñëwaat indiwaat murit gi ci ci yoonu Baye dafa redressé waat yoonu Baye jubbantiwaat toggin wi indi fi ay xidma yoo xam ni tey jii fuñ kenn mënul xam tey fi mu toll. moom lañu gunge moo ñu xamal Xelcom moo ñu xamal liggéey yu bëri moo ko xamal surtout ñun ñi nga xam génération bi bi nekk nii. ndax boobu liggéey xel Xelcom moom la ko sëñ sëñ Saliou Fall sëñ Saliou Mbacké da daan jox moom moom mu ñu koy mu ñu ciy tàggatal kon moom tey continuité bépp tey moom la. waaw ndigalu Baay Faal yëpp moom it macha allah ba tey njabootam gi suñu fàllu mu amee tamit fi nekk macha allah doon jàmbaar koo xam ni daanaka euh, ku fi toog xalif boobu jógee ba léegi da koy teg sa wet ngir moom ak jàmbaaram ak ay murtam mu lay àggaleel liggéey bi yàlla nañ ko suñu borom fayal tamit bu baax a baax fii moo ñu def fi tableau sëñ Ablaye Fall Ndar tamit mu nekk ñetteelu xalif Mame Cheikh nga xam ni nga xam ne bi bi bi bi fii moom dafa am histoire bu yéemee boo xam ni surtout moom ak magam bi sëñ Fallou mi nga xam ne dafa desoon ca ca waar wa moom ak waajuram soxna Fatou Fall Wade dañu ko nettali woon ci li Cheikh Ibra Fall waxoon ci moom ginnaaw bi sëñ Fallou jugee woon guerre ba ñu ne ko wàcc na en 1916 mu war a moom toog mu war a mu war a remplacer ko quand même mu war a dem war dem guerre histoire bu xawoon na yéeme ñeewantal gi soxna Fatou Fall Wade bi nga xam ne mooy waajuram bi ko Cheikh Fall amoon ko ni ko di nga dem ba toog xilaaf ak moom Cheikh Fall sama sama sës bi tey dafa dem ba ba ba feeñ ba marqué mu nekk troisième xalif moom Cheikh Fall yàgg fi lool te waajuram fekkee ko seede ko moom it mu mu doon liggéey bu remarquable boo xam da ko def def ci def ci yoon wi vraiment macha allah kii nag ci topp mooy Cheikh Sidi Assane Fall moom tamit moom moo nekkoon ñeenteelu xalif xalif bu am Cheikh Ibrahima bi ginnaaw bi sëñ moom moo toog xalif gi mooy tey ji jàmbaaram ji sëñ Amdi Khady Fall nga xam ne mooy borom jàmbaaru ndogo yi moom tey mooy waajuram macha allah mooy borom kaw Sara moom tamit uh, mu am taxawaay bu bu mucc ayib boo xam ne taxaw na ko ci yoonu ba ci ci yoonu Baay Fall macha allah. après fii ñu dugg nag fii nag mu kii nag mooy sëñ Modou Moussa Fall mooy uh, jiitu ci xalif bu am Cheikh Ibrahima yi waaw kii nag moom mooy moom la ñuy waxee mbaa yàlla bi moom am Amdi Fall Mamadou Ousseynou Fall moom mi ngi nii moom bi ginnaaw bi suñ Mame Cheikh Ibrahima Fall wàccee moom moo toog xilaafa pendant vingt ans moom toog reñe bi reñe ki taxawaatal yoon wi téewaat yoon wi doon koo xam ne dafa matoon lépp li mu doonoon matoon góor yàlla tey ba léegi moom mu ngi noonu daa matoon sëkk moom rek doyoon na ci Baye Fall gi sëñ Moussa Fall te jii mooy turandoo ki nga xam ne moo toog xalif bi tey si am di Modou Menda boobu léegi nag daanaka ay moom ginnaaw bi jeexee tamit ay sëtam yëpp ay doomam ñoo fi doon toog xilaafa gi mooy jur sëñ Cheikh Fall jëm bi wàcc léegi nii ak sëñ Modou Amine Fall waaw ak tamit sëñ Cheikh ba bàyyam góor donc tey jii moom tamit taxawaayam sekkam ak euh, retrouvailles yi mu créé woon yëpp daara yi mu fi créé woon yëpp ba léegi moom nit ñi dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci faggandiku di ci jëfandiku ba tey moom daal ku ku téyoon yoonu yoonu Baye Fall la woon ndax moom Sëñ Tuubaa sax daan na ko daan na ko liggéeyloo moom dafa fe nekkoon ci mag ña Cheikh histoire bi ñëpp dégg nañ ko Sëñ Tuubaa bi mu li koy liggéeyloo ak bi ci Cheikh Fall li mu ci waxoon loolu moom ñëpp ñëpp xam nañ ko waaw di pare fii ci Sëñ Mortala Fall xam ne moo nekkoon deuxième xalif euh, Mam Cheikh ibrahim Fall nek di maami sëñ Cheikh Khadim Fall mi nga xam tay moy def bes bi tay nga xam ni moy mamam direct donc euh, voilà kon mom tamit euh, gàtt bu gàtt la fi def waye gàtt bu am solo ndax mom day don ko xam ni Cheikh Ahmadou Bamba moko ko yar moko ko tarbiya moko ko jàngal mu nekkon Baye Fall bo xam ni dafa yaro ko sëñ bi mu don amat ak dal go xam ni ba tay tey boo xoolee waa kër Mortala Fall yi ba legui descendant yi ba koo ci xam da nga xam ne kii da nga naan kii moom xanaa ci murutu Baay Faal la bokk ndax dal gi tey gi sell gi ak lépp rek ndax loolu ñu ngi ko jàngee ci seen maam Cheikh Ahmadou Bamba waaw loolu daal tey moo nekkoon fii ci exposition bi nga xam ne moom lañ fi indi woon tey ci vingtième édition bu Magalu Serigne Cheikh Khadim bi waaw voilà. mu mel ne mbokk yi dégg ngeen ni nga xamante ni noonu la ñu indilee li nga xam ne mooy exposition bi euh, mu mel ne ndaw ñi nekk ci daara ju kawe gi euh, di def lu mel nii bokk ci ñi taxawal exposition bi bu ñu bëggee roy ci ku mel ne Cheikh Ibra naka lees koy royee. waaw lu mel nii Euh, ñu nga xam dañoo ne ci daara ji daara yàlla def na ni léegi daara yëpp yi nekk Sénégal yëpp daanaka fépp am na ay daara Baay Faal boo ñëwee bu Dakar bi fi ñu nekk am na fi daara mu Xadimatul Xidma boo xam ni dafay regroupé ay Baay Faal yoo xam ne dañuy dëkk fu nekk di jos samp ci kenn ci kii fi dekkal maam Cheikh Ibrahima Fall daara ji nag yàgg na fi mu ngi fi sasu depuis 2003 Serigne Cheikhouna Fall euh, ibnu Serigne Saliou Fall Farsaw ibnu Serigne Moussa Fall maam Cheikh Ibrahima Fall moom moo ko initié moo ko jiitee mooy ba léegi mooy responsable moral bu daara ji moom nag euh, mooy lii lépp moo ko taxawal daara ji ba tey mii dund nit ñaa ngi fa nekk tey la gën a dox tey ku ñëw foofu nit ñaan taxawee liggéey bi nga xam ni lañ fay liggéey lii bokk na ci bis yu mel ni ñu ñëw taxawal leen gunge leen ci bis bi daf fay exposition xarañte ci def aussi yeneen ak feneen ak feneen def ay ndogo yu mel ni ci koor gi ci daara ji premier jour koor ba ba dernier jour koor ñu am ko ci ndigalu euh, Serigne Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ni moo ñu joxoon tur yi turu Moukhaddamatoul Khidma ba jox fa aussi ndigalu ñu toog ci daara ja di fa di fa def joxe ndogu ci université ba te ñu koy matalee ba léegi saa su nekk muy gën di yokk di fa sikar bu jot ñu fay sikar talaata bu jot ñu fay sikar am fa ay daara bàyyi di fa defar café di fa jàng tamit ndax am nañ commission pédagogique am nañ commission sociale am nañ lépp loo xam ni ñi ne ci daara ji liggéey sëriñ bi liggéey sëriñ bi mënul yàq ci njàng mi dara dara dara dara dara nit ñaa ngi jàng foofu boo ñëwee di nga fa gis ay ay titulaire de licence titulaire de master titulaire de doctorat kilifa yëpp ku fay ñëw da nga fay eh, xam ni tey jii tey amul bàyyi boo fa nekkee jóge fa it ba léegi yaa ngi fa ñun nekkatuñ fa jóge nañ fa waaye ña fa nekk ñoom la tey ñi ñu ngi fa ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi bi amul bàyyi sëñ bi tamit amul ba koor gi rek mi ngi fay ñëw di siyaar di siyaar muridi ko ubbil ñëpp rek tëjuluñ ko kenn tey la fa nekk mooy dalay jàngal ak tarbiya daara ja gis naa fa ñoo xam ni fa lañ jàngee liir alxuraan fa lañ jàngee liir xasida fa lañ jàngee sikar fa lañ jàngee tarbiya fa lañ fa lañ tarbiya ba tey nga leen xool xam ne ñii ay dëgg dëgg seen kër yi fañ jógee woon da nga naan ñii dañu jàppoon rek waaye bu ñëwee foofu vraiment te it famille lañ mbooloo lañ am nañ ay soxna am nañ ay bayfal te it lépp lépp lépp lépp lépp benn la yaatal nañ ko te ni mu amee Dakar noonu la amee boo demee Saint-Louis muy waa daayira Jazbul Murid foofu tamit ñi taxawaay ñi taxaw même taxawaay bi nga xam ni moom la ñuy moom la ñuy taxawee Dakar moom la ñuy taxawee feneen ubbi nañ tey it xam nañ ni lu waay manqué ci xam-xam boo ñëwee ci biir daara ji daara ji gars yi dañ la ko dañ la ko motalil. ndax foofu foofu réseau câble la. li manqué kii keneen ki dina ko mën a motalil lii kii amul keneen ki dina ko mën a xamal te ñun amuñu ak rëy biir ndax ay Baay Faal lañu. lu ñu xamante dañ koy yokk dañ koy dañ koy partagé. ba ñëpp mën cee am am am am accès. ba lu waay mën a lépp rek lépp la ñu am foofu lépp la ñu am foofu am nañ ci ay professeurs à l'université. am nañ fi façon corps de métier bu ci nekk am nañ ci ñi ñu ngi fi ñi ñi ngi ci bitim réew. kon ñoom matériel nañ tey daara ji benn la benn buum la ñi fi dugg tey ñi dugg déwén ñi dugg déwén tamit lépp. lépp benn bi la. kon daal nekk ci moom njëriñ la tey tawféex la. dina la jàngal adduna dina la jàngal ak yar ak jàng aussi dana xam ne aussi société ni muy doxee ak surtout la sociabilité. Mhm. vraiment loolu tamit lu solo la. ndax njàngale maam Cheikh Fall dafa doy sëkk. daa doy sëkk. mu ci yebee rek doy na mën naa yorum réew vraiment. mel ne Baye Fall yi ñëpp ko déggandoo woote baa ngi noonu ñëpp dem abonné ji ci seen bi nga xamante ne ni mooy Khidma Média muy télé sëriñ bi euh, te daal di laal cloche notification bi waaye it abonné mboolem chaîne nga xamante ne rek ñooy jàllale liggéey bi saa su nekk mu mel ne loolu moo tukkee woon ci exposition bi nga xamante ni moom lañ leen doon dégtal mel ne dañuy jàllaat rek ci leneen ci liggéey bi daal di wéyalaat ba ci kanam incha allahu taala jaa ngeen jëf.